di remercier tous les téléspectateurs de Salam Vision euh, di gërëm toute la diaspora di gërëm Sénégalais yu nekk bitim réew ak li ko tey gëstu tey ñu jëm si mbirum les faux billets lan mooy faux billets mooy mbuxum yi am si réew mi euh, luñ naan euh, xaalis boo xam ni dafa jaarul yoon lam laa mel réew mi faux billets yi nag ñu fi indi ay gàllankoor ku dégg ba yi tay nañu damm ñu sonn nañu di woo suñu mbokk banquiers yi les sociétés de la place les employeurs les cadres sénégalais yi askan bi ma ne nañu gën a góorgóorlu takku te xeex les faux billets euh, faux billets dafay nasaxal koom-koomu réew dafay delloo réew ginnaaw yàlla nañu si àlla gis ngeen ni jamono yooyu passé am na kilifa bu mag bu nekk ci réew mi du ma tur mais dafa def lu doy waar dugal fi ay faux billets loolu dafa ñaaw si réew Sénégal ban réew lañu nekk réewum démocratie naam mais dañu war a fonk euh, suñuy charte fonk suñu réew dafay gën a delloo réew ginnaaw xooleen tey yenn réew développé yi mais pourtant njuuj njaaj am na fa mais ñoom ni ñu koy defaree bokkul ak Afrique Sénégal bi dafa ñaaw te gis koo xam ne yow jëkki euh, am ay milliards kii am ay million ma ne nañu xoolaat suñu bopp bu baax kii di nguur gi di waxtaan ak askan bi ana ministère de l' économie et des finances ana suñu trésor public ana suñu cadre économique yi ñooñu ñoo war a góorgóorlu di leeral di sensibiliser Sénégalais yi te lan mooy euh, mbuxum lan mooy faux billet du may am si faux billet te dañuy waxtaan benn bu am solo mooy kayit yi nga xam ne dafa dëppoo mooy euh, les faux passeports ku jóg. naan dama lay dem mun naa la lijjanteel passeport passeport boo xam ni ay njug njaay kese la ba si vignette yi bu euh, jëm si mbirum oto mbirum permis de conduire da gis koo xam ne yow rek am permis te teew ko fenn ma ne dañu xoolaat suñu bopp le ministère des transports euh, sevice de mines bi joxe permis war nañu gëstu bu baax di xool ñun la ñu gëstu dem nañu fépp dugg nañu fépp ma ni sunu gaal ñoo ko bokk bu gaal bi surux ñëpp ay surux nañu bàyyi njuuj njaaj yi te góorgóorlu bu ñu bëggee réew mi jëm kanam lañu gën a di toog di di waxtaan mais foo billets yi bare na faux euh, billets nag yàgg naa ko wax yàgg na si réew mi 1960 euh, ba léegi mënu dañ euh, président bu fi ñëw ngay di wàcce yërmande ma ne man de boo doon jiite réew dinaa fi indi foo billets en une minute waaw di woo tous les banquiers du Sénégal muy la BCEAO toutes les banque di yëngu si mbirum koppar may nañu xool lii lañuy di saytu di xool ces faux billets du du mag rek am na kilifa yu koy def am na ay ay ndaw yu koy def te am na tey euh, ay artistes ay comment ay showbiz ñoo xam ñu ngi dugg si mbir moom dafa ñaaw jékki-jékki rek am alal bu jeex am ay milliards te liggéeyuñu ko ñàkkuñu ko loolu man loolu développé lu réew gëstu nag loolu mooy. Euh, li ñuy waxtaanee tey mooy les faux billets damay ñëw si par exemple euh, problème mu kayit yi nga xam ne dafa jaarul yoon tey boo demoon tey Sénégal yi wut extrait de naissance kayit am na njuut am na am nañu naan euh, de faux papier dégg yoon muy extrait de naissance muy bulletin de naissance ba si tey bu nit faatoo nit bu faatoo laa la wax nit bu faatoo certificat de décès am ay njuut ñaaj teg na samay bët loolu la loolu man waxoon naa mbokku askan bi même nit bu faatoo nga am sa certificat de bu leen jébal sa borom dafa am ay njuuj njaaj si kayit yooyu ñun teg nañu suñu bët mooy gëstu tey bii euh, gëstu nag du pour gëstu tey du pour xaste ñun dañuy dañuy gën a dànxaafu nit ñi ñu gën a góorgóorlu fas jom Sénégal royukaay la dëkku jàmm la dëkku diine dëkku lislaam xoolal ku mel ni Cheikh Ahmadou Bamba le fond liggéey réew mi euh, liggéey diine lislaam ñoom seen jamono jamono ju muccaay jamono ju neex dañ doon euh, delluwaat askan bi si yàlla delluwaat askan bi si diine lislaam delluwaat askan bi si jàmm ak salaam euh, ku mel ni ci El Hadj Malick Sy rabiallahu anhu euh, maam Limaamu Laay Baye dañ nekkoon si ay nit ñu baax di nit ñu am sutura Sénégal yi am musuñu xam ñu njàgg yooyu lubal ay këyit di def ay ñaawteef mani askanu sunu gaal dañu gën a góorgóorlu bay suñu waar xar suñu tàntu bay Euh, delluwaat euh, buy ca mboy mboy loolu mooy réew mais li ñu gis dafa jéggi dayoo foo bii bari na tey foo dem xooleen euh, muy un partout Sénégal muy aéroport muy port un partout nit ñaan ngi dugg di génn doo xam kan mooy kan lan la fi nit indi lan la fi dugal si réew man loolu dafa doy te dafa tax li woo les autorités du pays en l'occurrence le président de la République xam mooy jiite réew moom la ko yàlla dénk mu wax ak euh, les responsables du pays wax ak askan bi di gën a di yee nit ñi réew mi ñu ñoo ko bokk mais li ñu gis yàlla ñu sàll musa foo bien nag ah bu ñu deful ndànk rek dafay na dafay delloo réew ginnaaw war na mën di toog def ay campagne de sensibilisation euh, à travers les médias wax ak askan bi les radios les télévisions loolu mooy média rôle média euh, dama gis ay les des fois journalistes yi absent si mbir moom ñoom leen lañ tal muy problème politique euh, askan bi ñoru leen euh, di woo suñu mbokk journalistes yi di def ay table ronde di organiser des experts économiques euh, ay borom xam-xam ñu xam seen xel màcc na si mbirum koom-koomu réew loolu mooy dëkk mais li ñu gis si télé yi rajo yi amul benn maanaam benn programme njuñ njaaj ñu bare na dama ni di woo xam ne moom mooy les acteurs sociaux les partenaires au développement surtout les institutions financières internationales xam ne ñooy Sénégal di gën di toog di diisoo loolu mooy koom-koomu réew bu ñu fekkee ne bu ñu fekkee dañu bëgg réew mi développé mais li ñu gis métti na métti métti na askanu suñu gaal yëpp yàlla incha allah musal mooy les faux ak njuuj njaaj yi. Euh, di woo aussi ñii di woote ñi nekk si ambassades yi ñi di liggéey si avec les ambassades Sénégal ku jóg créer sa cabinet naan euh, mun naa lijjanteel visa mun naa lijjanteel passeport loolu yëpp ay soob la nañ ne ñu xoolaat nit ñooñu bu baax. dañuy nax nit ñi te du dëgg du yoon waaw ñun nag Salam Vision saagawuñu kenn xasuñu kenn dañuy alerte dànxaafu sensibiliser les te ñu bàyyi euh, li ñuy def te dafa ñaaw te dëgg dëgg du yoon ku ku yeewu créé sa cabinet man man ma neexee créé sama cabinet naan leen euh, mun naa leen ba États-Unis nangam nangam man loolu amul visa ambassade moo koy délivré. léegi koo xam ne dafay mbubboo ne euh, dafay collaborer ak ambassade. koo xam ne day mbubboo dafay ko rek euh, euh, ki defar permis mais xooleen tey ni bi nit ñaa ngi ñaa ngi fàttu bu dégg bëccëg c'est le manque de discipline Sénégal amul benn discipline boo amul sa permis euh, nga jékki-jékki àndaloog sa sago mais di nga fàtt nit dama ni permis yëpp dafa jaarul yoon yëpp ay ñuy yàgg la ba si faux billets yi muy xaalis muy papier yi man lañu woo maa ngi woo sénégal yi ñu ànd ak dal ànd ak yar ak teggin ñu mën a di toog waxtaan wut ay solution génne si euh, jafe-jafe yi mais pourquoi pas l'Assemblée nationale mooy pencum ndaw leen di leen woo les parlementaires du pays euh, di leen woo ñu mën a waxta voter ay projet de loi pourquoi pas voter ay projet de loi ne képp fi def di mbiroom dañuy teg ay daan sa kaw amul masla di wow si kilifa diine yi ñu wax ak taalibe yi Sénégal dafa nekk réewum kilifa diine Euh, chef religieux yi ñoo ñu war ah, jamonoy indépendance ba léegi leen woo ñoom tamit ñu mën di di di sensibiliser taalibe yi am na ñoo xam ne dañuy faral di tukki di ñëw def ay njuuj njaaj du dëgg du yoon indaale fi ay faux billets loolu yëpp Sénégal bi ñaa ngi koy gis dafa metti ma ne xale yi màgg cette nouvelle génération buñ ko gisee nag dafay ay jafe-jafe ma ne askanu suñu gaal nañu góorgóorlu wow tous les Sénégalais de la de la diaspora ñu nekk un peu partout aux États-Unis dans tous les pays les Sénégalais qui viennent di ñibbi si réew mi ñibbi si sa jàmm ànd ak xaalis bu bu lew xaalis bu jaar yoon xam ni ëllëg réew mi doon benn gàllankoor li ñu gis métti na trop askanu suñu gaal tey daal moo doon suñu euh, gëstu tey jëmale ko si les faux billets mooy xaalis euh, bi nga xam dafa dëppoo na l'argent sale mi ngi dugg si réew mi bu nekk bëccëg nit daf fiy dugg wàcc aéroport def ay maretu xaalis des milliards des millions mais est que xaalis boobu set na ma ne nañu xool bu baax di woo si suñu mbokku douanier euh, les soldats du feu ay jàmbaar lañu ñoom ñoo fi nekk di aar koom-koomu réew mi ba suñu frontière gis nañu douane yi sonn ñu guddeeg bëccëg di taxanteeg euh, les yi euh, di leen ñu gën a góorlu renforcer la sécurité économique dans les frontières à l' aéroport incha allah bu ñu ko defaree Sénégal du amati benn gàllankoor euh, sur le plan économique di ñaan yàlla yal nañu yàlla musal si les faux billets nekk na loo xam dañ ko war a combattre jëlee ko si réew mi. yàlla incha allah musal mbokk yi moo doon si moo doon tey gëstu bés bi jëmale ko sur les faux lan mooy faux billets ñan ñoo ko fiy dugal ah ñoo ñëw leen teg ay dàll Sénégal masla bi doo na sëkk di wala président Sall toutes les autorités yi ñëw seen i motuwaay jëlee fi ñaaw te mooy les faux billets mbokk yi jaa ngeen jëf si présentation bi Cheikhou Sakho jàmm ak jàmm ba beneen yoon incha allah